Omar Fouti yi kenn mënta wax ci moom ba dajal ko ñibbisi na Sénégal ñaari at ginnaaw mu taal nag li nga xam ne mooy eh, jihaad loolu boo demee eh, Cheikh Al Hadji Malick radiallahu anhu mu ngi koy wax mu ngi xaj xajja wa haajara suma baadu jahadahum karra wa gaara alayhim xayluhumul junudu mu ne eh, moom de aji na màkk gàddaay na nooni kooku moom mooy cheikh alxaaji omar futi taal mu mel ni cheikh al mu mel ni da koy feelu mu ne inna nabiya rasulallahi yaamuruhu bizal jihaadi wa qatmul awliyayi xadara mu ne gis nga yow cheikh alxaaji malik ki ngay wax ni di cheikh alxaaji omar futi mu ne jihaad mu taal suñ borom subhanahu wa taala mooy ki nga xamee moo yabal yonent bi salaay salaam digal ko pour mu daal di jihaad euh, waaye bi muy signé loolu nag ak moom ki nga xamee ne mooy Cheikhu tijaan mu ngi daal di euh, teew Cheikh na Abdourahmane Bari borom boggal mel ni daf leen di feelu mu ne amarahul Mustafa al Muxtaaru rasulallahi bi nashri diini ma al jihaadi fi sabilillah Cheikh na Bari mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa moom mi ñu tànn ci kaw suuf tànn ko ci kaw asamaan mooy ki digal Cheikhul Omar Fuuti Taal ci jihaad waaye ki tasaare di lislaam lépp nekk ci yoonu suñ borom subhanahu wa taala mu mel ni cheikhul xalifa sëriñ Aboubacar si ibnu cheikh alxaaji Malick si ibnu cheikh alxaaji Ousmane si mu mel ni moom it radiallahu anhum da koy feelu mu ne ko lahul lafu fi amril ilahi junuuduhu li nashril ida lillahi lam yabqa xaaliya mu ne chara nafsahu yabghi ridal xaqi rabbina wa yartaxi maqaaman faata eh, maqaaman faata marmahu aliya mu ne cheikh al omar futi taal mii suñ borom subhanahu wa taala moo ko digal jihaad mu ne moom cheikh al omar futi jaay na bakkanam bi jaay léppam jëndee ko ngërëmaane suñ borom subhanahu wa taala te cheikh al omar futi yu taal du gërëm mukk loo xamee ne suñ borom subhanahu wa taala gërëmu ko mu mel ni cheikh Mouhamadul Khalifa Niass radiallahu anhu da koy feeluwaat mu ne cheikhun zawil fatxi xusaamu diini man laa yuhaabu xaddul xusaami omarul fuuti almazilu li kufrin bi rimaahin ala nuxuri li ami mu ne cheikh al omarul fuuti yi mii mooy ki nga xamee ne moom moo dàq yéeféer yi waaye ci xeej boo xamee ne xeeji lislaam la dàq leen ci ndigal suñ borom subhaanahu wa taala dàq leen ci ndigalu yonent bi salaay salaam dugg ci gox yi dugal leen fi nga xamee ne moom mooy ci euh, géej gi nga xamee ne ku ca naan euh, dootoo marete ba yowmal xiyaam te loolu moom mooy géeju lislaam euh, Cheikhul Omar Fuuti Taal Haj Bekkaay su ma lay wax ay maqaamam wallahi xaal sax dafay jàpp doomi aadama mooy ki nga xamee ne Mawlaana Cheikhul Islaam ibnu alxaaji Abdullah ibnu Cheikh Mouhamed Niass radiallahu anhum nee na mu ne xutbin eh, kaamilin fardin zaimin salili saidin miftaaxi tulaabi mu ne cheikh al omarul futiyu taal Baay Ñas nee na booy wax cheikh al omarul futiyu taal da nga la bu mat xutbu waaye kaamil la bu mat sëkk fardu la ca maqaamam ya kilifa la moom doomi ki taxe kii nii nga xam ne bàyyam moom mooy alxaaji Eh, Thierno Saïd Tall mu ne kii di Cheikh Omar Fouti Tall ñaan yépp wala càkkuteef yépp moom mooy caabi ji nga xamee ne moom mooy tijji càkkuteef yi mu mel ni Cheikh Sidi Al Hadj Malick radiyallahu anhu da koy feelu ca wet ga naan ko yow sama doom déglu ma rek laa xaaliba fii fuaadi yaa wasilatana siwa mahabbatukum ya xamaru mu ne man dey sama xol bii man Cheikh Al Hadj Malick sama gis-gis yi mu ne amul kenn koo xamee ne am na ci walla amul kenn koo xamee ne nan na ko lu dul ki nga xamee ne moom mooy suñu wasila muy Cheikh Al Hadj Omar Fouti Tall mi nga xamee ne ab la ci diine weer la eh, ci xaqiqa weer la ci eh, ay teggin weer la ci maanu waxal ne weer la ci jikko yi nga xamee ne mooy jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni Cheikh Al Hadj Mouhamadul Khalifa leen di feeluwaat nannitul marama bi madhi cheikhana umara xalifatu cheikhi man di diine xad amara mu ne man day am naa teraanga man day am naa sama mbébé jot naa ci ci tagg gi nga xam ne maa ngi koy tagg kii di cheikhul omar fuuti mooy xalifa cheikhu tidiane ci amul benn werante ci moom day diine ci la dunde fii ci afrique ak fudul afrique mu mel ni ceerno abdourahman bari da leen di feeluwaat ci euh, wet yi naan boo xamul kuy cheikhal omar fuuti taal aalimun taqiyun saalihun zahidun aban lil kulli xalifatu taha wa ahmada fa huwa al yatima mu ne booy wax Cheikh Al Omar Fouti Tall dang naan borom xam-xam la bu mat sëkk ku ragal yàlla la ku mat sëkk ku yiw la ku mat sëkk ku dëddu àddina la ku mat sëkk mooy bàyyi nag kilifa yi ngay gis ñépp mu ne xalifa yonent bi la sallallahu alayhi wa sallam xalifatu Cheikh Ahmad Tidiane la moom Cheikh El Hadji Omar Foutiyou Tall mu ne waaye moom mooy eh, li nga xamee ne mooy kër bi diisal eh, caq bi nga xam ne mooy caqu lislaam waaye mooy kër bi nga xamee ne moom mooy taaral lii di eh, lii di lii di tariqatu tijaan mu mel ni la Busheeri waxoon naan habbaza aqdu suudadin wa faxaarin anta fihi lyatimatul asmaaw wa ala kulli xaalin mu mel ni Cheikh Aboubacar Sy radiallahu si sëñ Babacar daf leen di feelwaat naan shahirun lada sudaani wal biidi kullihimi yusaawi bihi daanin wa man kaana qaasiya abu diini wa taqwa axu sidqi wal huda walam yarda maa laysa lil ali radia mu ne uh, cheikh alhaji Omar Fouti ku siiw la ci Afrique gu ñuul gi ku siiw la ci ni ñu weex ñépp nag mu ne moom mooy ki nga xamee ne jàngaro joo am rek soo ñëwee mu daal di koy faj rawatina jàngoro bi nga xamee ne mooy jàngoroy kéeféer jàngoroy iñaan jàngoroy jikko yu bon boo ko yore Cheikh El Hadj Omar Fouti da koy daal di ni ci yow mu ne boo koy eh, wër moom Cheikh El Hadj Omar Fouti mooy bàyyi ci diine ji di diine bàyyi diine boo koy wër mooy Cheikh El Hadj booy wër bàyyi ci ragal yàlla mooy Cheikh El Hadj abu diini wa taqwa mu ne axu sidqi wal huda mu ne moom moom mbokkoo mooy mbokk euh, li nga xam ne mooy dëgg fu dëgg nekk mu daal di koy tasaare jaral na ko ba jël xee xeexeecam di jihaad fi sabilillah mu ne waaye ak njub fu nekk da nga fay fekk Cheikhul Omar di Fuuti mu ne du gërëm nag lu loo xamee ne suñ borom subhanahu wa taala da ko daal di gërëm mu mel ni Cheikh al Khalifa euh, Cheikh Mouhamed Niass da koy feelu mu naan wa la minhu wisaalan gayra munfasilin yu middu min bahrihi man ab ma waxta xara mu ne eh, li nga xamee ne moom la nekk abul eh, abu diini wa taqwa li nga xamee noonu la nekkee axu sidqi wal huda mu ne loolu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam signeel ko tampon boo xamee ne tampon boobu du dog ba yowmal qiyaamati moo tax eh, boo gisee famille Cheikh Alhaji Omar Fouti Tall tekk lañ def ne dégg waaye fees moom lay wax naan bërigo bu fees du yëngu mukk cheikh al euh, euh, abdourahman bari mel ni daf lay ni feeluwaat naan cheikhuna umaru aqaama diina sharqan wa garban xajja wa haajara suma jahada fa niamal wasilatu mu ne cheikh alhaji umaru fuuti mooy suñu sëriñ bi nga xamee ne taxawal na diine ci penku ak ci sowu aj na jihaad na gàddaay na mu ne kii waay moo baax kii daal est-ce suñu wasila bii nii mu mel ni cheikhul Mouhamad Khalifa Niass da koy feenuwaat naan moom Hadj Omar Fouti bahru shariati bal bahrul haqiqati bal man nuuruhu wa amma man fil ardi wa shahara mu ne moom cheikhul Omar Fouti taal mi mu ne mooy géeju sharia waaye li fi nekk kay mooy géeju xaqiqa mu ne mooy ki nga xamee ne leeram gi muy leeru sharia leeru xaqiqa leeru al jikko yu rafet mu ne daal di dinay tasaaroo ci addi bi addina bi yépp nag ci suuf si yépp mu ne te loolu lu siiw la ñépp xam nañ ko cheikh mahamad xalifa ne min ajlihi saara haazal wirdu muntashiran bisil basisati bayna naasi qad zahara mu ne ci e, pasteefam ci la wirdu tijaan daal di tasaaroo fii ci kaw suuf nag te loolu lu wér la laalu ñépp xam nañ ko moo tax Sëriñ Tuubaa ne xaadama dolli la man sarrahu nay la asraarin isa nazara falaa yufaariq rimaha cheikhina umara mu ne bu fekkee ne bëgg nga di gëstu bëgg nga am ay secret yoo xamante da lay bégal saa soo ko xoolee mu ne bul tàqalikoog rimah bu cheikhul umar rimah nga xamee ne haj bekaay téere bu yéeme la rimah booy téere bi nga xamee ne cheikhal umaru futi taal bokk na ci ay taalifam te du moom rek la taalif ma ne Cheikh Al Omar Foutiyou Tall bokk na ci ay taalifam rima nga xamee ne téere la boo xamee ne bu ñuy mool jawaahirul maani dañuy mool mu àndaan ma ndax fu jawaahirul maani egg rek rima bu Cheikhul Omar daal di la fay yegg moo tax eh, Thierno Abdourahmane Bari ne cheikhu siyuuxi bila shakkin wa raybin bi yadihi ala diina charqan wa garban mu ne sëriñu sëriñ si daal soo koy wër kenn la koo koy Cheikhul Omar Foutiyou Tall mu ne ci loxoom ci la diine lislaam ekkati ko penk ba sow kooku li ma lay wax ni nag amul sikk te amul benn wenente xaaj bekaay wax naa lu bari waaye fi may tëjee dama lay wax ne la cheikhul omaru futi taal bokk na ci ay karaamaam rek turam omaru eh, ay ndigal 70 eh, la 70 mooy tolloog at yi nga xam ne moom la dund ci kaw suuf zahiran nag ci lu feeñ mooy 70 ans eh, waaye mim loolu quarante la euh, juróom euh, ñeent fukki xare la xaajul Omar Fuuti Taal def xare yépp nag da koo gañee waaye raa mu nekk ñaari téeméer bind na ñaari téeméeri téere wax naa la bind na ci fiq bind na ci tasawuf bind na ci ay azkar bind ci ay ñaan waaye bind na ci fatawa mi kitaabu fatawa bind na ci kitaabu ajwabatul masail demet demet moo tax Eh, te bi gën a wax naa la ko mooy rimaax xisbi rahim fii nuxuuri xisbi rajim moom Cheikh al Omar Fouti Tall ci loxoom nag góor yàlla yu bari jël nañ ci tariqatu tijaaniya damay tudd rek ba Jaxu Ba ndax temps bi duñu ko eh, may waaye Cheikh al Omarul eh, Fouti Tall jëlal ne alfahim mayoro wele di nijaayu alxaaji Malik jëlee na ci moom jox alxaaji Malik Cheikh al Omar Fouti Tall Thierno Mohamed Ibn Ibrahim Diallo muy Thierno Mamadou Diallo jëlee na ci moom te gis na Thierno Diallo mii dafa am nag lu yéeme moom musul gis ki nga xamee ne mooy Cheikh Omar dafa dem toog ji Fuuta Saint-Louis la nekk fu fukki at ak ñaar di góolu ki nga xamee ne mooy Cheikh Omar ab bis rek Cheikh Omar yónni taalibeem jox ko ijaaza jox ko ay secret tariqa bi ne ko demal Saint-Louis nga joxal ma ko Thierno Mouhamed Ibn Ibrahim Diallo ñëpp gën koo xam ci Thierno Diallo kii nag moom moo jox ki nga xam ne moom mooy alxaaji Abdallah Ibn Mouhamed Niass muy wajur wu góor bu cheikhul islam alxaaji Ibrahima Niass ba tey gis nga ko moom Cheikh Al Omar Fouti Tall moo jox Alioune Thiam Alioune Thiam jox Ibrahima Kellil Thiam nga xamee ne nijaayu maam alxaaji Abdallahi Niass la kon euh, si sëriñ yooyu rek laay tuddal waaye ma ne góor yàlla buy bàkku Sénégal Cheikh Al jox na la wird wala mu ñaanal sa wéyjur kon ma ne bërigo bu fees dellu du yëngu moo tax nga gis ne waa famille taaleen ne tekk ne dégg waaye ñu fees dellu lañ xaaji euh, euh, xam naa ne wax ci Cheikh Al Omar Fouti Taal xaaj bekkaay euh, du yomb dañuy tënk jàpp fii jël fee dugg fii waaye kenn mënul wax yëpp en tout yàlla yàlla def suñu dégg ak topp def ko ci yéen yàlla wan ñu dëgg bañ xam ne mooy dëgg ñu daal di koy topp moon ñu ay caaxaan bañ xam ne di caaxaan la ñu woon ko ginnaaw wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu